jërëjëf mbokk internet yu safoo di seetaan site bii di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax amaat mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey jii ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Malika Plage ñëw seet suñu benn frère bi nga xam ne dafa dund li nga xamante ni moo di agression ci nan ci naka ak ci fan ak ban heure moo sabab fi suñu ay tànk ngir ñu mën ñu jox ay information ci mbir moomu naka la demee gannaaw ba ñu koy nuyu rek dañ koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bii di wasaare bu ko defee mu daal ñuy indi indil ay reeraat ci li nga xam ne moom moo xew naka rek la demee kilifa gi ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay bu baax a baax di rafetlu seen liggéey di nuyu waa Sénégal yëpp waaw di jiital si niveau bi nga xamante ni moom mooy sama wasila sëñ Massamba Mbacké di nuyu sama yaay di ñaanal sama fu mu nekk yàlla na ko yàlla yërëm di nuyu Sénégal yëpp daal képp ki nga xam ne yaa ngi seetaan ñu lay nuyu di la siyaar. waaw tur bi Pape Moussa Mbaye la dëkk Malika Place mais ñu si bari Pape Moussa Afro lañ ma gën a xame ci sama tour artiste quoi waaw. ndax mën nga ñëwalaat ci ay leeral ci mbir mi naka rek la demee ak lan moo sabab loolu. waaw mbir ma bett la quoi lu bett ñëpp tamit aussi parce que ma xam ne ñëpp laa amal jàmm wax dëgg yàlla parce que du ma nitu problème mosuma dund problème sekkuma kaa kenn tamit aussi Malika fii boobu ñëwee ñëpp jàmm laa sekk ak ñoom muy mag di ndaw di góor di jigéen. parce que loolu moo tax sax jàmm jooju moo tax lu ma am Malika ma am ko fi parce que bëri na ñu bëri ñu nekk ci politique à 100 pour cent comme nu ma la ko waxee man je suis pas trop mais lu ma lu tax ma am fi Malika am fi base am fi lépp jàmm ju may sekk nit ñi ak euh, respect bu ma leen jox lu ma dund nag affaire bu ma bett la lu métti ñëpp la tamit aussi parce que comme te ñëpp xam nañ ne man maay représentant président Bougane fii ci Malika yàlla dafa def ñoom ñu joxoon may affiche ma waroon def benn opération d'affichage ba ñu programmé pour def ko aussi man j'avais man am sax di di dem di def ay yooyu mais xam nga man yàlla dafa def lépp lu may hésité rek xam naa ne musiba mi ngi ci quoi ndax yàlla dimbali na ma ci loolu. ba ma woowee sama deux copains ku ñuy wax Aziz ak Ousmane ñi ngi dëkk fii côté cité Sonatel ma leen dama bëgg a taf affiche yi parce que Bougane dafa war a def proximité département Kër Massar war a def aussi terrain yi ki ni war fa def le 6 janvier benn investiture ma ne leen ñëw leen jàppale ma ñu ne ma ok. ba ñu ñëwee fii ñu ataaya bu benn heure bi ay vingt deux heures moyen ah, ma taal sama oto ànd ak ñoom pour ma mun leen a yombal déplacement bi ba ñu ñëwee ba côté di taf ba côté mbaaru ndengom bi nga xamante ni moom mooy station sel bi su côté boobu ñu dugg noonu ci benn mbedd am na benn poste courant bu nekk côté boobu ñu fay taf ay ay nu ñu duggee noonu maa ngi gaare sama oto ci kaw tali bi nu ñu duggee ci mbedd mi rek di taf jékki-jékki rek am benn groupe bu génn quoi rek attaque ñu quoi seen président bu nangam taan jaar fu ñaaw xam nga saaga ndey saaga ndey bu ñaaw sax ba ñu saagaa ndey man ma man ma wax ak ñoom ne leen ni may yéen amoo leen respect parce que ay nit di liggéey ngeen ñëw sans ngeen nuyoo ngeen. nombre bi ñaata personne lañ toll. quatre personnes lañu ah ay quatre personnes lañu may am na ci kenn ko xam ne daf xaw a gàtt quoi doo mun a xam mag la wala xale la parce que foofu xawul woon na leer bu baax. ba mu waxee loolu ak waaj rek benn waa ji rocci paax quoi daal na ma yow loo wax rek ñu ma àndaloon ñu daw ba yi daw bañ dawee man ma taxaw parce que tamit mënu ma daw bàyyi fa sama oto. te tamit aussi daw sax nag dalul yëfu nit xam nga yàlla dimbali na ma ci loolu bañ ñëwee mu attaqué ma nu ma nu ma songee noonu man may jéema a riposte ak moom léegi benn gaan bi ci la ma dóoree fii xeer quoi dóor ma ko fii ci épole moo tax sama loxo bi nii sax mënul jub bu baax ba ma ko dóoree nii sama côté bii nag mënatuma ci dara quoi léegi après man maa ngi jéem làmbatu nii sama benn loxo beneen gaan bi dóor ma fii nii si côté cuisse nii quoi ba ma dóoree noonu tamit foofu jaxasoo naa xamatuma du may def mais heureusement sama téléphone ak yëpp ci oto bi laa ko woon ma tëj oto bi sama caabi rek laa yoroon ñu defee noonu après juste rek euh, ay mécaniciens yi nga xamante ne mécaniciens moto lañ ñooñu en général foofu la ñuy nekk seen place ba ay benn heure bi ñooñu ñoo ci yem xam naa cooli lañ dégg ak yooyu noonu quoi ba ñu ñëwee daal di yuuxu eh lu xew rek gars yi daw bañ dawee benn mécanicien bi jël naa numéroom sax moom moo ma dawalal oto bi indi ma ba sama buntu kër ba ma indee mu déposé ma ma wàcc après la information bi jàllee quoi. ndax mën naa xam ndax ñooñu dañu jugoon ngir agressé la wala dañu jugoon ngir yàq affiche bi nga xamante ni moom nga doon taf ci mbedd mi. waaw ak euh, man ba tey loolu mënuma ci am lu ma lu ma leer parce que comme lu ma la expliqué depuis semaine bële passé deux semaines yi si ginnaaw dama dund affaire yi nga xam ne c'est un peu compliqué man xawma nit ñi lan lañ si jublu ndax. ci naka bu dee politique jaru ko bu dee tamit aussi soxoree nit ki la jaru ko quoi parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ et puis ay jeunes lañu quoi. dama dama génn euh, semaine bële passé dama génn di yóbbu sama doom pour mu jàngi ay 14 heures yooyu ba ma génnee si buntu kër gi fu ma gaaree sama oto maa ngi gis benn paa bu génn sol kasket ak benn chemise quoi mi ngi yor nan dem ba koy dóor sama oto bi wallahi azim ma jàkkaarloog moom mu retourné dem ci poto yi xale yi samp foofu mu jël poto bi mu jël xeer bi nen bi fëgg ko ci poto bi ba mu ko fëggee après mu daal di koy téyewaat ci loxoom dem lépp maa ngi taxaw di ko xool mais comme te mag la tamit bëgguma jàppanteeg moom ndax man bëgguma toroxal nit bu ko dóoroon ci oto bi laa boobu am naa droit attaqué ko mais comme te jotul laal oto bi ma bàyyi ba ma bàyyee noonu après mu avancé dem ma yéeg wax ko sama yaay ak sama soxna après ñu ne ma defal attention deux jours lañ ci teg ma liggéey wàcc di ñëw ay vingt ma droité sama buntu kër wàcc nekkate am na yeneen deux rastaman aussi yi may topp man bàyyi ma leen xel mais sama benn femme bu ñu dëkkandool fii si koñ bi moo doon gunge gan ba mu taxawee noonu si tali bi si koñ bi dégg leen ñuy wax quoi kenn ki naan ko avancé nga dem maa ngi mel ni kiy wax téléphone mais dugg na ci kër gi xam naa peut-être laa dañ doon xool fu ma dëkk wala du genre affaire yooyu bañ demee après femme boobu yéeg wax ko sama jabaru mag après femme bu wax ma ko man ci laa wàccee après ci laa demee ci commissariat bi foofu expliqué sama ñaari xarit ñu ne ma da ngay da ngay def plainte affaire yooyu après noonu ma ne garaawal ma xëy suba nekkaat samay activité le lendemain laa xëy fekk ñu bënn sama ñaari pono avant sama oto bi quoi ma génn dem defar ko bàyyi noonu ba gis nga bërki démb affaire bi nu mu amee quoi moo tax man duma xam ba xam intention la woon wala président bi moo leen déranger wala man sama jëm bopp maa leen déranger wala je ne daal. ndax da nga mos di jot ay menaces ci li nga xamante ni moom nga expliqué lépp mu nekk loo xam ne ay tëkku la ci yow ndax danga nga doon faral di jot menace wala. non noo noo non man mosuma jot menace parce que man su ma liggéey wàcc rek maa ngi sama kër man ma fréquentation ma ci lu may dem lu dul artistes yi nga xam ne maa ngi liggéey ak ñoom. comprendre nga man du ma dem fenn man kenn fréquenté wu ma fréquenté wu ma kër kenn te benn numéro bu ma yor tamit aussi mosuma ko changé benn numéro laa yor mais mosuma si jot menace sincèrement. Mhm. ndax ñeenti nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo la doon agressé tey boo gisaatoon seen kanam di leen mën a xàmmee wala ñoom xam nga si koñ bi lañ dëkk wala ñu xàmmee wala. non man ñooñu mënuma am yaakaar ne sax si koñ bi lañ dëkk quoi parce que mali Malika fii nii. defe naa ne dox naa fi heure bu nekk quoi mais pour ma dund secteur bi côté bii nii ay affaire yu mel noonu moo musul am man fan yii rek deux semaines yu mel si si ginnaaw laa commencé dund loolu te je ne sais pas lan moo ko waral mais ñooñu su ma leen gisoon du ma leen xàmmee parce que affaire bi bett na ma et puis fu mu amee côté boobu dafa xaw a lëndëm loolu moo tax quoi si su fekkoon ne naa leen xàmmee moom noo jaral na ma ma wëri leen ba gis leen quoi mais ba mu am amee tamit aussi wax naa ko sama avocat euh, mu ne ma naa def certificat médical ma si remercier sama docteur tonton Kamou defaral na ma médical jël nañ ko def nañu déposition contre ex di xaar di xaar suite bi quoi. kenn koo xamante ni teg nañ ko loxo ci ñooñu. non non non non amagu ci kenn koo xam ne teg nañ ko ci loxo quoi sincèrement waaw déedéet. politique bi man boo xoolee euh, yàgguma ci nag parce que man boo xoolee man politique bi lu ma ci dugal ay relation la ak kóllëre ndax euh, ci élection locale yi passé ci laa gën a focaliser wu sax ci politique parce que dafa am koo xam ne yàlla moo ñu boole ma ko doon jàppale ci politique gars yi gis nag euh, boo ma ko jàppalee nit yu ma am compétence politique bu ma am ñu si bëri bëgguma ci recruter quoi mais buggaan lu ñu boole ci en dehors politique mais moo tax ba mu ñëwee samp ndëndam bëgg ma jàppale ko am yaakaar ma jàppale ko ma engagé wu ci à 100 pour cent quoi. Hmm. amoo benn problème ci ñi nga xamante ni moo di politique yi aussi yoo xamante ni war nañ war a yónnee ay nit ci yow. non parce que euh, li may wax ak yow nii même pas quinze jours euh, Manick Sène bu place du souvenir maa ngi koy ziar responsable place du souvenir moom sama xarit la euh, contacté na ma yóbbu ma ci ay politiciens yu mag ñi nga xamante ni ñu ngi woo parti pouvoir ba ma demee du ma rejeté parce que man en dehors politique aussi je un artiste bi nga xam ne ñu may soxla mun nañu bari. ba ma demee ñu contacté ma dem naa ñu may wax waxu politique moom bu ko seetaanee xam na lu may wax ma àndoon nag deux femmes ñu ma accompagner kenn ki Ami Touré kenn ki Aram Si moom ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ndax ba affaire bi amee ba léegi amuñu jàmm ñu ngi may woo message xam nga seet si di yónnee di def lu ne sincèrement mais ñooñu ànd naa ak ñoom ba ma demee aussi politiciens yooyu li ñu ma proposé tamit lu ma leen wax dégg nañ ko nee naa leen man nekkuma koo xam ne damay transhumé fii dem dem fële bu ngaa lu ñu boole kóllëre la d'abord avant politique moo tax kóllëre boobu ci laa koy jàppale mais pas en que politicien voilà c'est ça quoi. gannaaw jafe-jafe yi ngay dund ci affiche bi nga xamante nii moom nga demoon defali ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany ndax moom ñëw na fi wala mu yónnee fi wala. waaw Bougane ñëwagu fi mais ñi ngi déggante téléphone parce que woo na ma ñaari yoon affaire bi naqari na ko trop trop trop wax dëgg yàlla ba mu am parce que euh, nekkul loo xamante ni moom mi ngi ko doon séntu ne lii dina am ci côté banlieue bi quoi parce que pour moom euh, affaire de politique violation yi si yeneen camp la doon yem mais pas si côté bii rawatina moom xam na man nu ma mel biir Malika moo tax affaire bii bu amee moom affaire bu ko bett la sincèrement mais woo na ma ñaari yoon lu ci war tamit aussi yëpp mi ngi ko ciy def ñu ngi déggante téléphone ay nitam ñu ngi may woo ñu ngi ñu ngi ngi may ñu ngi may taxaw lépp li nga xamante ni moom moo ci war te loolu rek moo ci l'essentiel quoi. gannaaw ba nga nekkee ci politique beeg léegi ndax mbir yu mel nii mu ngi lay soog a wala am na beneen yoo xamante ni mës na la si dal. non ba ma duggee ci politique nag ba léegi vraiment lu mel nii mi ngi may soo a dal parce que des fois dina am loo xam ne ci biir parti lay am ci biir parti des fois nga nekk ci parti yaa ngi nit doo leen juboo wala nit ki du la neex wala nit ki doo ko neex du genre affaire yooyu mais comme en dehors parti lu mel nii no c'est c'est la première fois ma dund ko koi est-ce que tamit nekkul risque ci benn côté ci sa côté li nga xamante ni moo di say njaboot ndax tey boo demee bu ay nit ji la topp genn saay doo xam ndax dañuy bëgg a xam fi nga dëkk est-ce que tamit loolu du ay risque ci sa côté aussi. waaw risque la risque la parce que boo xoolee man dama ne woon na sax damay bàyyi politique de damay bàyyi lépp focaliser wu sama liggéey parce que sama gars yi wal fajir yi ñoom Charles Fall ñoom kàngam maa ngi leen di bu affaire bu amee ñoom ñëpp ma woo gën ma xamal sama position man gën ma xamal sama liggéey gën ma xamal sama valeur xam nga mais loolu yëpp seen mbëggeel la et tout ça mais nit ki gis nga bu dee da nga jël engagement dama toog waxtaan ak sama xel quoi moo jëlee benn engagement ci benn affaire donte da nga ciy dee sax da nga dee ak ngor gëm-gëm boobu laa am ba tax na ma ne su ma doon def benn dinaa yokk fukk su ma doon def téeméer dinaa yokk deux deux ñaar téeméer. waa si parce que sóoraale boobu moo tax sax man duma bugg di fës si ay média politique dama bëgg di fës ay programme du ma bëgg a fës leneen mu bugaan ba l'obélisque bi ba koy def yàlla xam na ne euh, fu ñu ma bëggoon a teg sax nangu ma fa toog dama mobiliser ànd ak samay groupement ba ma demee sama oto man personnel laa yóbbu taxaw ak ñi may taxawal benn heure bu ñu gis ma ma talaata ma oto ñibbi parce que bëgguma sax di fës si politique di ma gis wala di ma poser ay question parce que man bëgg naa bu ma Sénégal di xam ci leneen lu mu munti doon mu doon à travers sama liggéey quoi mais pas affaire de politique parce que boo xoolee émission yi ma def ci télé yëpp ci sama liggéey la quoi. Hmm. d'accord gannaaw bi nga xamante nii mbir mi am na say famille naka lañ taxawee maanaam seeni tànk la. waa jaaxle rek parce que man ba ma ñëwee si guddi gi dama ko doon nëbbu sama waa kër dama ko doon nëbbu sama yaay dama ko doon nëbbu sama sama soxna mais après ñoom ba ñu dégloo information yi si journal bi après si la si laa leen gën a expliquer au fond quoi mais ba ñu xëyee gis affaire yi dama rek dama gaañu. xam nga mais waxuma leen au fond lan moo tax parce que sama yaay xam naa ko quoi moom bu ko yéegee rek wala mu kii ko rek après dootul nelaw wala mu inquiété wu wala su ma génnatee xelam du dal loolu moo tax. Mm-hmm. waaw lu ma fas yéenee def xanaa sant yàlla rek tamit aussi quoi avant tout parce que mënoon na gën a garaaw tey jii comme te maa ngi toog ba di ko nettali sant yàlla ndax bu ñu ma gaañee faj docteur yi faj am nañu bu dee xaalis mooy faj sant yàlla. mais bu doon tey ji dañu jël sama bakkan nañ ma lor lor sama njaboot lor sama famille te politique jaru ko xam nga àdduna dara jarul loolu quoi moo tax damay sant yàlla aussi lu si des nag après mi ngi ci loxo yoon sama sama avocat waaw waaw waaw gars yi ndeysaan Adama maa ngi ziar la joor bu bugaan moom woo na ma pour envoyer ma sax ay sécurité mais nee naa ko loolu jaru ko parce que yàlla mooy sàmm ñëpp non seulement que nag fagaru baax na mais tey jii boo ànd sécurité ñaar ñett rek après loolu am na leneen lu muy defaat ci xelu doomu aadama yi. Mm-hmm. d' accord ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu gu mujj gi xanaa di di di di di dénkaat suñu bopp yàlla rek ah di wax ne lu am yàlla la quoi parce que man sama àdduna lépp lu may dal rek xëy na peut-être fit bu rëy moo ma koy teg waaw parce que. man foofu dama naan tout le temps dañ ma koy wax dañ ma naan da ngaa nduróog Modou Lo xam nga man Modou Lo mooy sama mbër nag mooy sama mbër dañ ma koy wax ku leen gis da leen foog yambar mais fit rek fit kese ngeen quoi loolu sant yàlla quoi parce que loolu lépp ba ma nekkee booy la man duñu la naan ànd di ak sama groupe sax wala ñu ànd di def dara sax bu problème amee ñëpp buñ dawee man du mu mun daw yàlla xam na ko loolu mooy sama nattu ci àdduna mais nag euh, di sant yàlla bu baax di ñaanal président Bougane tamit aussi li nga xamante ni moom lay yóotu bu ko jigee yàlla si jot mais di xamal sénégalais yi ne réew mi lu koy defar du président du politique yi quoi mooy defar réew mi parce que jikkoy bon fu mu nekk koppar mënu ko defar wallahi azim nañ defaraat jikko yi bu ñu bëggee am jàmm xam nga affaire bi du ci Macky Sall du ci Sonko du ci Bougane si ñun sénégalais la d'abord waaw loolu daal laa am comme message xam nga di ñaanal ñëpp tamit aussi di remercier ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi may jàppalee bu baax a baax parce que affaire bi amee ba léegi am na ñoo xam ne nelawatuñu quoi billaahi wallaahi chaque jour ñu ngi may woo ñu ngi inquiété wu ñu ngi message ñu ngi def lu nekk mm-hmm. sant yàlla baax Pa Moussa mbay la mais Pa Moussa Afro lañ lañ ko gën a xamee lañ ma gën a xamee quoi mm-hmm. waaw merci beaucoup jërëjëf kontaan naa jërëjëf mbokk internet yi doon safoo di seetaan site bii di wasaare ni lañ leen ko waxee tey ñu ñëwoon file ci Malika Place ñëw seet ci ki nga xamante ni moo di Pape Moussa Mbaye nekk responsable politique ci ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany gannaaw bu mu dundee li nga xamante ni moo di agression dégg ngeen li nga xamante ni loolu la expliqué ci li nga xam ne moom la dund ak li nga xam ne moom la dund avant mbir moom mu di am mu nekk loo xamante ni lu doy waar la waaye fi mu jeexalee rek moom tamit foofu laay jeexalee muy defaraat li nga xamante ni moo di xol yi nañu raxas xol yi te xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nekkul politiciens yi ñoom ñoo koy defar waaye ñun askan bi ñun ñooy defar Sénégal ba mu baax ah, kon nañu fi bàyyi xel bu baax a baax di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajafal xale sama doom sama caméraman di jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan site bii di wasaare rendez-vous beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système benn taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf